li nga xam ne tey ñun dañ koy nakarlu tey ñun en tant que ay njiital étudiant mhm. parce que étudiant foo ko xamee si en fi nga ko xamee foo xam étudiant si jàng lañ ko xamee donc tey ñun mënuñoo nangu tey plus de quatre mois mënuñoo jàng ba pare ñu yokk si conseil administration bi nga xam ne moom la ñu def barkat démb lu yàggul dara le vingt Maguette Sène ak le recteur ñu ne ñoom dañoo soxlawaat deux mois pour ñu mën a defaraat li nga xam ne moo yàq université mhm. ñun loolu noonu en tant que représentant étudiant mënuñu ko nangu cela veut dire que ñun mënuñoo jàng ba après élection te ñuy fàttali ni université amul benn politicien bu ko moom l'université n'a aucune obédience politique université jàng moo ñu fa indi mais du politique donc bu fekkee ni que c' est pour des agendas politiques pour satisfaire le moo tax ñu ne dañuy tëj université bi nañu génn si loolu quoi ndax ñun étudiants yi ñun dañoo bëgg jàngi ndax aujourd'hui mën nañ ne service yi nga xam ne moom la étudiant di soxla mooy logement restauration ak service médical yooyu noonu yëpp mu ngi dox kon pourquoi pas université étudiants yi mënuñu fa dellu lenn rek moo tax étudiants yi mënuñoo dellu affaire de politique moo tax Maguette Sène bëggul ubbi université. yan risque nga xalaat ci politique bi moo tax nanguñoo ubbi université bon peut ñoom dañuy yaakaar ni que li fi xewoon le premier juin mun na fi xewaat mais lenn lenn lañ leen di lancé ñun en tant que représentant étudiant am na yenn yu bëri yoo xam ne ñun ko nangu. Mhm. mënatuñ tey si biir université bi tey bu leneen di amaat. ñun représentant étudiants dinañ taxaw ne lii kat dootu am mais lenn liñ bëgg mooy xam nga mooy lan nañ ñu ubbi suñu université bi dellu jàng suñuy jàng mais gis nga fu ñuy defee normalement tey bu fekkoon ne da ngeen bëgg a interroger un représentant d'étudiant da ngeen fekk si faculté bi si biir université mais laa laa la gis nga fu ñu koy defee cela veut dire que l'étudiant a perdu ses droits te loolu noonu da dul yoon Sénégal dëkkum état dëkkum loi la gars yi buñ amul ku ma am ku ma amul ndey nañ bàyyi étudiants yi dem jàngi fu ñu war a jàng jee ñii politique nañ dem politique ñu ubbi ñu suñu université ñu dem jàng ji. puisque point de presse kese ngeen woote am ngeen autorisation lan ngeen jàpp ne moo waral tey ñu xañ leen point de presse boobu ñu gis ne force de l'ordre yi ñëw nañu taxaw si bunt bi bañ yeen ngeen wax ak presse bi. wax naa la ko wax naa la ko wax naa ko sànq. gars yi dañuy satisfaire le calendrier politique looloo tax certes am nañu autorisation mais gars yi bëgguñu étudiants yi sa dugg biir université léegi étudiants bu lay dugg. ñun fi nga xam ne fa lañuy jàngee mënatuñ fa dugg ban dëkk lañ ne ban dëkk lañ ne dañ waxante dëgg ban dëkk lañ ne donc ñun am nañ un plan d'action loo xam ne mooy on va paralyser le système éducatif de tout le pays tant que université ubbiwul fenn kenn du jàng ñun loolu lañ décidé te loolu noonu dañ koy wéyal ba keroog ñuy ubbi université te loolu noonu nag dañ koy lancer un appel au président de la république à monsieur Maguette seen aux autorités académiques ñu xam loolu noonu dugal ko seen bopp bi xam ne que université tant que ubbiwuñu ko jàng dootul am Sénégal quoi qu'il advienne nag ëllëg état du Sénégal na xam ne que ñoom ñoom ñooy les ñoom ñooy les responsables de cela merci. Euh, même benn question gis nañu génne ngeen de la force mais policiers yi dañoo ñëw yàqal leen est-ce que yeneen école yi pare ngeen pour dem foofu noonu nombre bi ngeen doy nii nii. duñu duñu ñu duñu ñu tant que école yu nekk Dakar yëpp génnewuñu leen parce que nous sommes en collaboration ak les amicales départementales foo dem si Sénégal tey Diourbel Thiès Fatick foo dem ñuy génnee lycée yi ak collège yi parce que loolu mooy suñu plan il faut faudra que tey état xam ni université université ay étudiants ñoo fa nekk étudiants yi noon il ne demande que delluwaat si en fii dem jàngi laa laa laa envoyé nañu des nouveaux bacheliers du ma bachelier yooyu noonu kañ la ñuy jàngi ñun mënuñoo pare suñu premier semestre ñu envoyé ñu ay nouveaux bacheliers mais nañu teg affaire yi si yoon ñu xam ni que kat Sénégal fu ñu toll nii nañu bàyyi étudiants yi delluwaat fi ñu war a dem Merci. Merci. International SeneInfo International suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te